jërë ngeen jëf yéen bokk yi nga xam ne yéen ñu tàmmoo bàyyi xel seen web tv alazhar touba point com fu ngeen mënti nekk ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu leen sant leen gërëm leen wax ne ñi ngi ba léegi euh, ci li jëm ci programme màggalu Kazu Rajab édition 2014 bi nga xam ngeen ni ni ma leen ko faral di waxee màggalu Kazu Rajab nekk na xew-xew boo xam ne mën nañu ne moom mooy ñaareelu xew-xew ci yoonu murid ginnaaw màggal Touba ndax euh, doomu aadama yu takk yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw ci màggal duñ ko gisaat beneen yoon bu dul ci li nga xam ne moom moo di màggalu Kazu Rajab gi ba tax na mu nekk euh, xew-xew boo xam ne ci fànn yëpp ci wàllum koom ci wàllum diine lu rëy rëy la fii ci réew bu Sénégal xam ngeen nag Serigne Fallou Mbacké njabootam ñu ci bëree bëri ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi di Touba kenn ku nekk yaa ngi koy màggal ci sa biir kër ci anam boo xam ne noonu la ko ku tedd ki euh, bëggee ci njàngum alxuraan ci njàng xasaayit waaye itam ci daayira yi nga xam dañuy faral di ñëw di fesal seen yéene ci bis bi waaye ziar bi ginnaaw buñ ko tàmbalee Serigne Abo Mbacké ci euh, suba gis ngeen ko ci image yi dañuy daal di dem fi nga xam moo di kër Serigne Abdou Fatah ñoo ngi fii sax ci kër ci kër Serigne bi déjà dañuy daal di dugg rek ànd ak moom Ah, ci délégation yi nga xam ne ñëw nañ di seet si ki nga xam ne Serigne Abdou Fatah Mbacké bu ñu fa jógee nag daal di dem eh, seet yeneen eh, doomu sëriñ Fallou yoo xam ne ñu ngi màggal bis bi eh, kon ci kanam fu ne la ñu duggoon de waaye yow rek la ñu dese fu nu duggoon daw nañu yow rek a dawut Ablaye Wade moo ma wax li ma tax a wallahi daf ma wóolu bii nee nga ma woon dana la woo mu woo ma am ma fu ma yónni waaye dafa ni wallahi bi bi ma duggee ci biir dégg nga ñu dala tudd dafa ni na ngeen jëkkee ci sëñ Abdou Fata te nee nañ fi del siwaat nañ mujjewaat Assane Wade moo woo démb euh, ne ma président de la soxla euh, dafa nekk audience daal ba pare mu jox ma ko mu ne ma daa yónnee ci délégation màggal gi ñu mu teewal ma fi teg ci nii nii nii nii nañu ñëw ci yow. ma ne ko 9h30 10h ci mu ni nañ ñëw ci yow foo nu jëmee nu jëmee fa. moom mii la ma di ko wax ne ko wa bilaay moom bi ma war sànq dafa ma ne fu ngeen dem na sëñ Abdou Fatah seen buntu. ma tegal ko ca leneen barki démb 3h ci guddi la départ nu fekk leen dindi mu ni ma sol boobu ma ne ko président sonn nga mun na sëñ Abdou Fatah du tëdd te ñëwuma. Abdoulaye ma ne ko Mbakke mu ni ma sëriñ Abdou Fatal féete na ma foofu bi ma génnee ci pouvoir laa ko xam waaye bi ma nekkee ci pouvoir fii ma féete xaw ma ko woon. teeru bi ñu ko teeru tuubaat mu saam waaye sëriñ bi nga ñaanal ma dikki mii. waaw Abdoulaye Wade bàyyiwu ko fi woon moom dong de waaye li mu dese woon def na ko ginnaaw Abdoulaye Wade ci parti bi. dëgg la yoonu sëñ Tuubaa wi. nee sëñ Fallou danaa wax ni. déglu yoonu sëñ Tuubaa wi. bu ma neexee. ma fekk jal bu sëñ Tuubaa jal ma col colal bu ma naqaree ma wàlli kon nag kaw rek jeen fan lay saburi sëñ Mbàkke du suñu sëriñ rek yam si sunu xarit la sunu lépp la te moom wax dëgg yàlla dafa nekk koo xam ni tànneef la ndax jikkoom dafa rafet tey jàpp te dafay jàpp te du bàyyi moom nit koo xam ni wax dëgg yàlla ni nu sunu sañoon waa Kër Sëñ Touba yëpp na moom la noo mel mooy koo xam ni foo gis rek tànneef la tey ñëw nañ fi tàllal ko suñuy loxo da xam na nañu aussi jege gu mu jege Cheikh du faadal ndax fu mu toll mi ngi liggéeyal Cheikh du faadal te kuy liggéeyal Cheikh du faadal wax dëgg yàlla sa fay kenn xamul nan lay toll kon fay boobu nga am mën nga si sédd ñëpp loolu tax nu tàllal ko suñuy loxo ni que mu ñaanal président Ablaye Wade yàlla gën ko dëgë dëgëral. may ko gën ko yokk fanam yokk wéram ba pare mu ñaanal senegal ba pare ñu tàllal ko sunu loxo ni moom mu ñaanal nu ba li nu bëgg liggéeyal sëñ Touba yëpp ñu mën ko def. tolluwaayu réew euh, euh, président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee réew mi war nañ ko ni que ñu ngi si moo ñoom ñoom dugal nañ ko si biir xolam foo seet fu mu dem fu nekk rawatina tubaa gi addina addina moo dagg ñëw wuy si ko dëgg la voté woon naam ba pare waaye bi mu ñëwee sénégalais yi wan nañ que ni que mi ngi seen biir xol si histoire politique man mosuma gis fenn si àddina benn président boo xam ni dañ la daaneel si vote matagul ñaari at wala ñaari at tuuti nga dellu si waat sa réew réew mën nga xam ni fan lan la daaneeloon si vote nga ñëw réew mi yëpp génn di la teextu loolu fii la amee si président lay Wade waaye nag gëm naa ne man li ko may loolu mooy li mu doon taadu taalibe sëñ Touba kenn du ànd ak sëñ Touba di am jafe-jafe kenn du ànd sëñ Touba di rus sëñ Touba dafa jar àndal te loolu moo feeñ si moom. merci jërë ngeen jëf mbokk loolu lañ leen jëleloon fii ci kër Serigne Abdou Fatah Mbacké Falilou leen di daje beneen yoon ci seen yeneen i jotaay ci ziar yi nga xam ne Seneweb TV alazar touba point com mi ngi koy def ci njabootu Serigne Touba Serigne Fallou Mbacké kon ñu daal di ak yéen ak dem ci yeneen i kër jërë ngeen jëf